Mm-hmm. Assane Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi FM. ñoo ngi lay daloo nuyoo di kontaan ci invitation bi soxna Elisabeth Diatta. Mm-hmm. nga bokk ci euh, comité directeur bu parti démocratique sénégalais. dëgg la secrétariat national bi. Mm-hmm. tey ñu waxtaanee déjà ci li nga xam ne moo fi xew bu yàggul turu maître Abdoulaye Wade doonoon njiitu réew yu Sénégal ñu jox ko stade bu Diamniadio mu doon li nga xam ne tey euh, ñu bëri am nañu nuñ ko jàngatee tey sa appréciation justement d'abord ci mbir moomu. waaw xanaa di. Euh, di euh, gis ni comme ni ko yi ñi si ëpp boog yi ñu ko gisee euh, di ko rafetlu. Mhm. di rafetlu tur bi nga xamante ni leen nañ ko le président Abdoulaye Wade. Mhm. ci stade bu bees boobu. Mhm. te mu nekk loo xamante ni euh, lu waroon am la bu yàgg sax ndax président Abdoulaye Wade dafa xeexal askan wi. dafa dagg seen mbuumu jaam. fexe ba démocratie sax ci Sénégal. fexe ba liberté démocratique liberté individuelle ñu mën ko exercer bu baax a baax. Mhm. xeex lu toll ak ñaar fukki at ak juróom-benn soog am nguur gi. Mhm. bi mu nekkee ci nguur itam gérer ko fukki at ak ñaar yoo xamante ni kenn ku ne gis nga Abdoulaye li mu fi tabax. Mhm. le bâtisseur lañ ko doon tuddee. di tabax ay oto di tabax ay centre de santé di tabax ay université di tabax ay lopitaan di tabax di tabax di tabax. loolu dafa am solo trop. kon tey bu fekkente ni président Macky Sall ko uutu ci réew mi ñëw na tey jël turam dëpp dëppale ko benn stade Euh, kooku dañ koy rafetlu. Mhm. dañ koy rafetlu bu baax a baax waaye man de ci sama xalaat sax maa ngi doon xalaat ni wax dëgg yàlla euh, Abdoulaye Wade war nañ ko sax tuddee benn université bu am am solo. Mhm. compte tenu du fait que yàlla may na ko xam-xam boobu. Mhm. professeur d'université émérite nekkoon doyen de fac euh, nekk un expert pratiquement en tout genre. macha allah yàlla na suñu borom lafal ca tamay ko gudd fan. donc kooku xam-xamam ak fi mu teg njàng ak fi mu ak bëgg a yóbbu réew mi. Mhm. te teg ko ci xam-xam. loolu euh, jama jàpp ni man euh, mérité woon na sax ñu tuddee ko benn université ba am am solo. Mhm. waaye loolu loolu yàggul incha allah rabbi le parti démocratique sénégalais <laughs> ak ay alliés dinañu dellu si léegi au pouvoir bala yàgg incha allah yàggatul bu boobaa dinañ am opportunité. tabaxaat yeneen i université yoo xamante ni incha allahu dinañ ko mën a tuddee turu université bu bu am solo fii ci réew mi. ah amaane na Macky sax tuddee ko université. waaw mën na nekk mën na nekk lu mën nekk la waaye dama yaakaar ni ci léegi ñaari at. xëy na loolu dina xat gàtt ci moom. <laughs> te incha allah en deux mille vingt quatre bu soobee suñu borom. Uh-huh. am nañu yaqin ni euh, Karim Wade dina liggéey réew mi. te ko bu ko defee incha allah dinañu mën a liggéey bu baax a baax. continuer œuvre président Abdoulaye Wade. Ah, d'accord Sénégal yi tout mu rànk nañu bu baax a baax. ci loolu d'accord ci mbir moomu la Assane am ñu ko jàngate ne euh, dañoo gis ne Wade ak Macky euh, boo mayul dinañu euh, delluwaat doon benn maanaam rapprochement la ñu gis noonu lañ jàngatee tuddee gi ñu tuddee maître Wade stade bi ndax li ni mel moo ngi am. waaw xam nga en en vérité Wade ak Macky waruñu woon sax soreyoo. Mhm. ndax diggante. président de la république bu nekk en exercice. Mhm. ak président de la république boo xamante ni moo ko uutu woon ci ci réew mi. Mhm. ay rapport yu civilisé lañ war a am. Mhm. rapport euh, yu am euh, jàmm ndax kenn ku nekk war nga mën a soxla sa moroom rawatina ki yor réew mi tey di ko laaj xalaat ci fànn yëpp. ci wàllu yoon ci wàllu euh, institution international yi ci wàllu doxalinu réew mi et cetera et loolu dafa am solo. Mhm. waaye nag diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade li ko ñagasloo yéen ñëpp xam ngeen ko moo di Macky bi mu jëlee réew mi dafa wax ni moo dafa am benn compte benn règlement de compte bu mu bu mu am ak PDS moo ko wax journaux yi yu bind ko. Mhm. mu delloo ci ni euh, moom dina mën a dafay dafay daal fexe daal ba opposition bi am Sénégal daal dootuñu tekkeeti loolu. wax dëgg yàlla kilifa yaakaar na warul waxee noonu te itam nag euh, opposition def am solo ci réew mi. Mhm. ci biir loolu nag PDS nag moo ko ci sonaloon. ndax yaakaar nañ ne xëy na bu bu bu indiwul PDS jafe-jafe moom du mën a fol woon du fi yàgg mu dal di dakkalaat cré yi dal di jël ay ndigal jox ko procureur spécial bi mu jël liste bu tolloog daanaka trente à trente cinq personnes. Mhm. mu leen di topp dégg nga jàpp ci Karim Wade sonal ko euh, euh, jéem a yàq deram tëj ko kaso ñetti at ak lu topp et cetera ba tey jii justice internationale Macky Sall def am problème ak justice internationale parce que bu mu dem ci justice internationale. Hmm. ñu may Karim Wade dëgg. yooyu nag moo indi woon li ci gën a bëri ñagas bi am diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall. Hmm. te tey jii nag bu fekkente ne xel mi yedd na ko. ba bëgg na jéem a fexe laver loolu maanaam raxas ko ba mu set. ba tey jël turu Abdoulaye Wade tuddee ko stade. Hmm. mais tant mieux waaye nag Sénégal a xam jàmm la ñu soxla ñu ay kilifa yi réew di poñante soxluñu ay citoyen Sénégal yi poñante dañu war am jàmm ak dal nekk kenn ku ne bëgg sa nawle kenn ko nekk euh, jàppante ak sa nawle ngir réew mi suqaliku réew mi dem kanam waaye waruñ fi nekk di xeexu ak di toojantee bopp ak di sànnante xeer loolu daal wax dëgg yàlla euh, ah. kenn bëgg ko civilisé wul sax loolu dafa rafetul sax. loolu daal moo tax ma yaakaar ni politiquement politiquement rapprochement amul mais ci wàllum euh, Euh, ci la ñu toll daal ci ngeen toll ak moom. ci li ma xam daal euh, Abdoulaye Wade ancien président de la République la moom ak Macky Sall président en en exercice euh, moo ñoom ñaar ñu seq ñoom ñaar ñooy wax. Hmm. gis nga bi nga xamante ni ku baax que Serigne Mountakha tamit dajale woon na leen ci Masalikul Jinaan. Hmm. rapport yooyu daal moom lañu ñu war a continuer. te bu dara sax war nañu jël Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. yéenam bi ma am ci réew mi amal ko ci askan wi ñoom ñu rus ko ba tabax réew mi jàmmoo réew mi fexe ba kenn ku ne li ci ak ak sa élève ñu jox la ko te bañ indi ah, vraiment di boodoxante ak di xeex sam ak di xeex ma demb mm. loolu amul benn njëriñ mm-hmm. loolu daal jaaxal na loolu daal kuy xelal Macky Sall président la yaakaar na loolu nga ko war a xelal mais doo xelal ni dal ci doomu Abdoulaye Wade yi euh, gàcce leen toroxal leen loolu ku ko defit sa sa su ngay mujjee du baax yaakaar na loolu daal baaxul. wax ci élection territoriale yi nga xam ne ci lañ wees euh, mu am li nga xam ne euh, wàllu euh, ñu ngi koy ñaxtu foofa ca Pikine jëm ci docteur Cheikh Dieng ñu gis ne dangeen amal ay plan d'action ngi rek ñu daal di jox fokkati gi ñu bëgg a def foofa ca Pikine loolu lu mu. waaw wax nga dëgg Elisabeth loolu dafa xaw dooy waar lool. ndax il faut le dire. le maire sortant Timbo. Mhm. wax dëgg yàlla euh, population ville de Pikine dañ ko woteelul. Mhm. docteur Cheikh Dieng bu wàllu Sénégal lañu ñu woteel. bi mooy li nga xamante ni moo tukkee ci centre de vote yi tukkee ci bureau de vote yi ñun dañ def compilation dañu dajalee résultats yépp bureau de vote par bureau de vote centre de vote par centre de ñu noppee calcul boobu ñu gis ni. rawe nañ ko lu bëree bëree bëree bëri bëri mm-hmm. waaye nag ñu gis ni mm, préfet bu Pikine moom fexe na boo Timbo dal di koy installé ni ko moom mooy mais de Pikine donte ñun saisir nañu par le canal de nos avocats un collège des avocats bu jox leen suñu ay firnde suñu ay preuve mm-hmm. ñu yóbbu mbir ma ci cour d'appel yëf yaa ngi cour d'appel cour d'appel am na dans ak délai boo xamante ni mu ngi koy xool mm-hmm. délai ba jeexagul xam nañ bala yàgg mu jeex ñu génnee seen arrêt. Mhm. loolu nag doy na waar lool. loolu moo tax ci àjjuma ji euh, woote nañu assemblée euh, dajaloo bu rëy ñu def ko Pikine pour wane ni ñun du ñu nangu ko fokkati suñu ay victoire moo tax ñu ñu woon nañ ci démocrate yëpp woon nañ ko coalition d'opposition yëpp ñëpp fay daj ci kattan suñ borom pour encore une fois wane ni ñun nous sommes déterminés pour que suñu ndam boobu kenn bañ ko jël parce que ndamal waa Pikine la te waa Pikine yaakaar naa ni duñu watal docteur Cheikh Dieng ba pare ñuy yàccaaral ak di ñàkk fayda ba koo xamante ni daaneel nañu ko wax da yàlla ñu ñu ñu bëgg ko jox victoire bi loolu tam mu am Guédiawaye mu am partout mu am Thiès mu am Kaolack dégg nga mu am Ziguinchor donc victoire yooyu nga xamante ni opposition daf ko am dafa am solo trop ay victoire yi symbolique la mais président Macky Sall il faut le dire président Benno Bokk Yaakaar a ni ci li ñu ma wax ni nee na daal région de Dakar yëpp ñu ko fiy gagné xam nga ne loolu dafa xaw doy waar. te yéen am ngeen yaakaar ne xeex gi di ngeen ci am ndam. waaw mais mais dañ ci am ndam parce que euh, euh, nous avons la vérité des urnes ak ah, ñun li nga xamante ne askan wi woteel nañ ko te ñu firndeel ko ci procès-verbaux yi mais kook koy wax du yàlla kenn waxtu ko falsifié lii foofu rek lañ sukkandiku nag bu loolu amuloon mais du ñu du ñu yuuxu bu loolu amuloon du ñu wax ni ñoo ñoo gagné. Mhm. gisoo Kaolack bi ñu ko bëggee fokkati waa kaw dañoo jox ñu jox ñu jox leen dëgg waa Pikine tam nee na ñoom duñu yaakaaral ba ba ba ñu këf seen i victoire lii de mooy mbir mi ak loo ci mën a dégg daal lii mooy wax ji. Euh, ñuy waajal ay législative waxtaanee caution euh, ci àjjuma ji yéen PDS ndax euh, dem ngeen ak proposition déjà ci montant. waaw ñun nag dañu waxtaan ak suñu nawle yi xam nga dañu am ay partenaires am partenaire dans l'opposition Euh, waxtaan nañu ak suñu nawle yi ñu bokkal coalition euh, arrêté nañu ay disposition donc foofu le la ñu waxtaanee mbir mi te loolu code électoral maanaam loi électorale moo ko maye. Mhm. moo maye ni bu ñu jubee ay élection euh, dañ ko war a cautionné. Hmm. code bi def leen imposer délai pour ñu mën a daje ñu waxtaan même bu fekkente ni xam na ne ni waxtaan wi njeexintal mi état bi gouvernement bi maanaam ñoom ñooy fixé caution bi. Mhm. waaye en tere nit ñi. am nañu sañ-sañ cautionné wax daal seen ay xalaat waaye la am solo daal mooy euh, ñun opposition bi yëpp daal manko nañu parce que yéene nekk benn dànk ci élection yi ñëw ci élection législative yi parce que législative yi parce que nag dina jàng ci ay ci suñu jaar-jaar mm-hmm. ni am na ay erreur yu am suñu diggante ak ay réeroo et justement ndax Assane jàpp nga ne yéen wàllu ak waa yeewi di ngeen mën a def bloc comme ni nga ko waxee dem ndax gis nañ li fi xewoon ci euh, local yi. waaw ñun ak yeewi amuñu benn problème du ñu ay wujj ay partenaires lañu dans le cadre de l'opposition. Mm-hmm. Euh, wàllu ak yeewi ak yeneen coalition yi ak démocrate yi ak ñi nga xam ne dañu fare société civile tey jii ñun ñëpp. dañu war a mànkoo booloo suñu doole pour que ñu mën a dem ci élection législative avec la conviction que ni dinañu gagner am majorité à l'Assemblée nationale bu ko defee ñu forcer gouvernement bi à une coati cohabitation bi nga mm-hmm. xamante ni mosul am ci Sénégal mm-hmm. xam nga lu tax mm-hmm. benn coalition lëm ak loo am doole doole mënoo gagner la coalition gouvernementale qui est en face de donc coalition ñii nga xamante ni ñoo fare ci kujje gi. Mhm. ci opposition bi maanaam. Mhm. atteste nañu bu ñu boolee bi ñu boolee suñu si li nga xamante am nañ ko ci résultat bi ñu ko agrégé boolante ko gis na ni ñoo ëpplee fuuf li nga xamante ni mooy résultat wu Benno Bokk Yaakaar loolu déjà am na solo. Mhm. li muy tekki foofu mooy donc ñu booloo rek mooy tax ñun ñu mën a gagné coalition benn Bokk Yaakaar te loolu la askan yu bëgg. loolu askan wi askan wi dañu aspirer a un changement te changement bi nga xam ne soxla nañ opposition bi moo leen ko mën a may moo leen ko mën a indil loolu moo tax tey que muy wàllu Sénégal que muy coalition Yewwi Askan Wi que muy yeneen coalition yi yeneen parti yi ak yeneen mouvement euh, de de la société euh, civile mm-hmm. ñooñu yëpp tàllal nañ leen loxo dinañ waxtaan ak ñoom waxtaan bi sax commencé na déjà pour que ñun ñëpp ñu teer nos zéro dañu xam ne Sénégal ci boppam moom la ñu liggéeyal askan wi la ñu liggéeyal tey euh, le seul salut qui moo di ni ñu booloo bokk ndey bokk baay joxante loxo àndandoo si jàmm ak salaam. daal di gagné élection yi defaraat Sénégal. Mhm. ndax Sénégal yàqu na fi mu nekk nii. d' accord Assane ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay gërëm bu baax. Elisabeth di la sant di nuyu say auditeur auditeur ak di remercier sa direction kontaan naa trop ci invitation bi. Mhm. merci beaucoup Assane.